macha allah la dernière question lan mooy sa plat préféré. plat préféré ah man nag awma bañ mais euh, am na loo xam ne nag ciw diwtiir moom vraiment <laughs> mën naa si def deux heures mën nga ma defal kilo. ma jeexal ko ciw bulet wala ciw yàpp. wala ciw diwtiir day moom am diwtiir rek. na nekk ciw diwtiir. waaw ah, ciw diwtiir moom mooy vraiment mon plat préféré mais. je mange du tout vraiment man aw ma bañ Fatou mooy bañ bëgg nga domoda góor ñu bëri fii duñ lekk domoda ah domoda oui non surtout boulette wala domoda jën wala hmm. domoda yàpp jën bi na doon sompat bu baax déggal loolu ah, euh, xam naa ah xam nga leen moo ko waral xam nga naa benn sœur laa am waaye uh-huh. yàgg na ma yónni marché marché Fass am fa dugg ba dugg naa fa ba sonn uh-huh. liste lañ ma doon jox gej ak yéet ak tàmba ak lépp waaye après dem naa ba maa jënd sama te jën damay jënd jën nag xam naa jën aussi ah. yan yan yan yan kii jën nga xam am na góor yaax xamuñu yaax. Mm. ñaaw neex xamuñu ko. ah xam lu ñu xam yenn góor ñi xam naa même. gars yi nii coof lañu xam. ah coof mm-hmm. mais tout le reste lii ah, xam naa jënd de. ay ah, jaroñ ak ah, entre autres. <laughs> Merci beaucoup, Birahim. Ça a Mais été merci, merci Merci, hein? merci vraiment à toi aussi. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi xanaa di leen di leen la famille qui scotche actuellement oui ñëpp et surtout mm-hmm. bonjour papa et ma mm-hmm. sama yaay. Euh, jigéen ju mën góor ma koy jaar bu baax a baax ak njaboot bi yëpp. Mm-hmm. Euh, di ñaan suñ borom ñi fi des suñ borom guddal seen fan te wéral leen ñi fi bawoo suñ borom xare leen ajano te di ñaan surtout jàmm ci réewum Sénégal jàmm yoo xam nag ñun ñëpp ku ci nekk dañ ci contribuer. chacun ci station bi nga ne. jàmm moo tax ñu mën a toog waxtaan bu jàmm amul ah dem leen ci yenn réew yu am ay guerre civile hmm. euh, doo leen toog di waxtaan de am na réew yoo xamee ne ils n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait actuellement te comme on l'a nañ ko préserver di ziyaara nag sama sëriñ di suñu wasila maam Thierno Birahim bu naa Ousmane borom daaru nooreeni di di ko tàllal samay loxo comme d'habitude sëñ bi daal balaay sa ñaanam